nit Qui bu mu mon tamit attends je l'appelle quoi Allô. oui Lisa. ay ah, Boubacar mais dama laa woo ba sonn.

allo. Ah, mais ban boor nga nekk maa ngi biir Sacré Cœur bi ni maa ngi wër wër naa ba sonn. Ah, xaw ma fi xaw ma paas la kii ma wax la ko. Malikum wax ko ma fanaan. allo. salaamaaleykum. maaleykum salaam grand ça va bien ban bor. la. ah da ngay ñëw Sacré Cœur ah. ci rond point boobu. rond point Sacré Cœur bi waaw. waaw après nga jàdd ci yoon boobu maa ngi foofu. waaw ma sama gauche. voilà exactement. ok d'accord maa ngi yegsi. voilà. jërëjëf waay jërëjëf waay jërëjëf waay merci waaw

señorita por favor. waxee ko bu ma rey man loolu nga bëgg a lekk tey. waaw amul leneen waaye da nga am loo ci fàtte xam nga dafa la ci tuuti poobar. ay ca ca ca ca. maa dem te ñëw léegi léegi. amul benn problème. dégg nga yes. ça c'est le jackpot. waaw waaye wane waaw allo maa yaay mën na ndey waaw ndey jàll jee dinoo def yaay jóg jot na waa yaay baxa yoxo moo jot suñu xaalis bi jot na ko loolu kañ la yii ndey kooku moom toogaay amul ñëw fa tey daal baxa yoxo xool dafa commencé sax changé dima laaj ndax nopp naa ko wala noppu ma ko yow daal bu lijjanti loolu ñëw fa waaw naa fa ñëw ngoon waaw wàccal yegsi nañ dégg fi fan appartement bu bien boo xam tu pourras manger te reposer nga sangu naan café def yëpp noppalu après man ma jaaraat ni wax. kon fii du sa non c'est pas chez moi. lu tax may cet appartement. mais wàcc la nga noppalu ko. man sa kër laa bëgg a dem sa kër laay dem. xanaa ma sa non naa la explique après affaire du compliqué naa la explique. sa jabar la ce que la dem doo ma si ben appartement nga yob nga ma yóbbu ci appartement parce que là bu a dem. oui ma da nga bëgg comprendre lépp. waaw. xolal da nga ma don chantage pour que ma tak la. man façon chantage bu ne façon problème bu ne indi nga mako pour que ma tak la. sama problème àdduna yëpp yaw la lepp lu ma am ci problème yow yaa ma ko teg bu ma am la. désolé. J'ai une émission à animer dans 30 minutes. Tu descends, tu prends un bain. Je vais te donner de l'argent, tu vas te reposer. Sous ma watch après ma diar D'accord D'accord Allez, viens. S'il te plaît, viens. Ça va bien Ça va bien, merci. Merci. merci. Ça va, ça va. Je voulais un appartement hein, euh, pour elle. Quoi. Ouais. Ah. Vous avez votre pièce d'entrée Appartement 108. su ma ñëwaat ah. ok c'est bon merci. Kan bukan, bukan, bukan bëggoon bëggatuma ko saytuma ak moom yéen lan la bàyyi leen Aboubacar fatt ngeen ma trop waaye te

wax naa leen bëggatuma ko maa doon sëy sëyatuma dama may sama baay dama ak kooku. mais est-ce que entamé nga procédure de divorce kat yi. man kay entamé gu ma dara maa ngi nii chaque fois day yónni ay nit ñu ñëw répété la même chose maintenant ma tontu la ne dama may sama baat mu dem ma dem bëggatuma ko. waaw mais xam nga bëggatuma bëggatuma rek fajul dara il faut nga jël avocat avocat ngay jël mu dimbale la ci lii man d'ailleurs sax bi may door ñëw boole woon nañ ma ak benn avocat bu baax. donc dinaa jël rendez-vous ak moom demain wala après demain comme saa nga dem seet ko waxtaan ak moom comme ça mu dimbale la ci lii bu baax parce que lii il faut que ñu dimbale la ci kii il faut mu bàyyi la une bonne fois pour toutes sonal na la torop. Astan vraiment man moom xamatuma lu ma lay wax mu lay remercier bu baax parce que instant bi problème bi na trop ci sama bopp bi xam man su ma la xamul woon fan laa jëm ak nan laay def vraiment tu m'apportes beaucoup d'aide. ah Kati loolu dara.

pour ñu dem xooli salon wam tu vois xool daal lan lañ ci mën def mais nag je sais ak ñi nga mel nii ndax di nga mën a demati. non si naa mën dem kay bien sûr naa mën dem. c'est sûr. c'est sûr que nañ dem nañ dem visiter ko de façon bu ñu dem si kenn rek nañ gëstuwaat tamit ñeneen ñi xool yeneen local yi. ko